ñoo ngi taxaw ak Ba di mu coach écurie Bathie Seras nekk mag naa maa ngi lay fay Iba maa ngi lay ziar baax di la baalu wax ci weeru mm-hmm. koor bi di baalu waa axlu laam yëpp mm-hmm. di baalu waa Sénégal ak waa àdduna yëpp ñaan yàlla comme dugal nañ ci koor gi bisimilah rahmaani rahim ñu eggale ko alhamdulilah génn si ak macha allah ñaan yàlla guddal fan yi wéral cër yi mm-hmm. yokk wërsëg bi bàyyi ñu ba si kanam kanam bàyyeen bi nan lay wooree sama xel ah, bi ñun moom wax dëgg yàlla ñun moom pour yàlla moom la ñuy dundee ah, dëgg yàlla ñun moom koor moom fekkee dañuy wax dëgg rek suñu aqulaay taala la ñuy wax ah. koor moom sonalu ñu wax dëgg yàlla man moom ah koor daal sonalu ma ndax xam naa ne Bayern yi bi tamit koor moom sonalu leen Tamba mu ngi woor mu ngi woor waaw mu ngi woor moom moom jeuneur la waaw moom moom day woor teg affaire ci xam nga yow ñëwoon nga écrit ba ba gisoon nga salaay mu ngi nekk ci état de forme di entraîner mhm. euh, ci diggante bi woo nañu am na promoteurs yu bëri yu ñu woo ku ci mel ne Fouta woo nañu mhm. waa jàmbaar yi woo nañu mhm. euh, ak bi ci mujj mooy ki tëgg combat ñi tëgg combat Ada Fass ak euh, Zos bi woo nañu ba proposé ñu Matar Ndiaye woo na ma Ndoye woo na ma bañ wax ma ne dañ bëgg tëgg combat bàcc ak Ada Fass bañ ne leen amul problème léegi des ñu bañ waxtaan ci cachet ba pare bon après nag dañoo toog au retour. moom mu yàgg ma jékki-jékki dégg na diggante Ada Fass ak ak taxaw na waaw. léegi nag bon boobu tam ñu ngi toog wawaat nañu aussi tamit. Mm-hmm. dañuy waxaat euh, même Pape Sarr woon nañu li ñuy wax dañu proposé ay combat xaw ma ak euh, kële nu mu mbaru bu nekk euh, bu nekk Kër Massar. Mm. kii mbaru Kër Massar bi. Kër Massar Kër Massar daa bëri mbër. waaw non mbër boobu rek mooy mooy mbaru kii bi mbaru kii Kanté bi. Ah. ah Jokal Jokal lañ ñor mais Jokal te xam moom mooy war nañu proposé Jokal ah. mais ñun Jokal wax dëgg yàlla du suñu choix quoi wax dëgg yàlla ñu ngi war nañu proposé ay combat ñu war a mën a bëreel dañoo bari donc ah. bàcc man du ma fi nekk di wax naan ay lii la ak lii la parce que lañ naan sabre fóot boppam bàcc c'est un très grand champion ñëpp xam nañ ko hmm. bu dee ci côté mobilisation dafay mobiliser hmm. bu dee ci côté tamit animation la xam nga ci lépp lu ñuy def côté boobu tamit daf koy def te nit ñi bëgg nañ ko sponsor yi bëgg nañ ko mm-hmm. xëy na nag booba léegi lu mu toog nii bëréwul ñëpp gis nañ booba léegi Sénégal li am moo fi am Covid bi fi jaar xam na mbëri fi nekk ku ci mel ne Ama Baldé léegi nii depuis 2018 ba léegi bëréwul xam nga am na mu ngi noonu parce que dugg dugg léegi six ans mu ngi noonu waaj mm-hmm. mm-hmm. moom tam depuis 2016 ba léegi bëréwul pratiquement booba léegi mu ngi noonu donc nag te du question lenn xëy lenn xëy na ah bon kenn ku nekk sa li ngay lekk si laam la lekk mais bu fekkee ne li nga moom la mbër di laaj te war ko def loolu lépp mu ngi ci moom ah, promoteur yi nag bon doo nekk nga ngay daw di fu ne nga dem ñooy toog xam li nga xam ne moom la ñuy jënd xam xam nga la arrangé nga jël ko benn sujet d'actualité ak yow au mois de mai 2022 hmm. hmm. ngeen di waajal soq ak franc le 19 juin ah. ngeen créé woon benn mouvement deux cent pour cent hmm. un an après xaalis fan la nekk association bi fan la toll. lan fan la nekk. 200 pour cent Pikine fan fan la nekk. Ah, dox wala doxul. Ah, non 200 pour cent ñu ngi ci parce que nag euh, lenn la depuis dafa am loo xam ne tam mu ngi ci woon xam nga mhm. tamit. mbir buñ ci nekkee di ci dox dañu war a euh, jàpp ko bu baax baax mm-hmm. soo gisee maa ngi ñu bëri ñuy génn di def ay naan ay bu taxawul kiiwul mais nag ñun ñoo war gën a boole suñu bopp mm-hmm. gën ci demee woon ak détermination bi loolu wax dëgg actuellement nii fi mu dafa xaw a manqué boobu ba léegi depuis ñu génn après ci combat Boy Niang bi ba léegi mm-hmm. dem nañ ba sax mbëru Pikine yi ñoom ñëpp ku ciy bëri dañ daan yëkkati xaalis yëkkati ci ci am loo tuuti xaalis bi nga amoon ci kees gi dañ doon dem mbëri ndaw buy bëri ku nekk ñu yëkkati benn trente mille franc jox la mbër bu ne waaw mbër buy bëri rek Pikine nga nekk ci Pikine rek dañuy jël trente mille franc jox la ah. mais dem nañ boobu ba léegi nag depuis saison bi ren saison bi tëjee daaw ba ren bi ubbee léegi boobu ba léegi réunir uñu dajewuñu war nañ daje nag woo naa keroog euh, Père de Gaulle bokk ko nag il est temps que ñu daje parce que gars ku nekk mun génn di wax ndax bu ñu toogee ñu nekk en léthargie mhm. boobaa gars ku mu neex mun na génn di wax lu ko neex te nag ko sumboon ñu woote mhm. nii mhm. nag il ba war ko def ko ñu repousser ko Père de Gaulle moo ne xam nañ ko euh, repousser gën a yaatal affaire yi tey am na kenn ku ñu bëggoon pour mu nekk président muy Ibrahima Diop moom waaw mais il s'est trouvé que ne moom dafa nekk promoteur te promoteur da nga wara a da nga wara a tëdd mënul la nek président 200% da di teug yeneen combat boba mun na mun na entravé xam nga hmm. euh, ci li nga xam ne mom lay teug muy promoteur boobu donc loolu moo tax ñu léegi nag pourquoi pas ñun nañ xool keneen suñu biir ñu jëm ko teg wala ñu jëm a xool kenn pour doom Pikine ñi fi nekk bari nañ pour ñu mën a gérer loolu hmm. Hmm. léegi nag incha allah am naa bu ñu génnee ci koor gi mais mais est-ce que yëg ngeen mbër yi ba léegi fipp ci deux cent pour cent bi na gis suñu seen bopp ah waaw mais xam nga lu tax ñu war na gis suñu seen bopp parce que affaire bi dafa laaj dafa lépp loo gis ci àdduna

amagul woon fond benn fond boo xam da koy am pour mën a jàppale mais li ñu def xëy na pour dem ci autorités yi jàppale leen pour utal leen fond mais ci diggante a ànd ak moom ci loolu comme ni ñu ko defoon ci ci ci mhm. xam nga ak yenn yeneen mbëri ndaw yi mhm. aussi itam mbëri mag itam ñi si nekk muy Eumeu Sène ak ñoom Ama Baldé ak ay ñoom euh, Boy Niang xam ñoom bàcco ñoom il faut que ñoom tam ñuy ñëw mhm. comprendre nga suñu leen wooyee réunion ñu ñëw dajaloo ñu ñëw su ñuy gis loolu du dem ci ci autorités di mën a am di nga xam di nga mën fa décrocher foofu daal di ko indi ça fait que ñu mën dimbali ñëpp tam tam gën di wax ah leen bañal li ñuy wax seen idée la seen xalaat la ya. mais problème bi mooy ñoom tam il faut que ñoom suñu leen woowee ñu mën a ñëw ci affaire bi ngir ñu mën a jëmmal li nga xam moo di 200 pour cent boobu moo ne nañ intérêt personnel moom moo la nga si doon non man xam nga du ma ne sax yàqu na mais problème dëgg moom lépp lu ma ci nekkee mhm. ma wax lu xamul du ma mhm. xamul ma def loo xam ne tamit mënuma ko mhm. te itam képp ku may àndal ci dëgg moom laay ànd ak ñun nag li ñu war a def mooy. Mhm. c'est que am na yoo xam ne lépp du média li nekk doo mën a nekk di ko wax mais li war a def daal mooy war nañ toogaat suñu bopp xool ne kenn ku nekk. 200 mhm. pour cent la ñu a wax. Mhm. kenn warul xool intérêt personnel. te nag incha allah suñu réunion bii di ñëw bu ñu ko defee ba pare ba teg ba formaliser nga xam ko fi indi tam ñu jël la tegale ne te continuer ci affaire ah, kees bi ñaata million fa nekk. non million dara nekk kees li fi nekk est-ce que motul parce que mbëri ndaw lañ ko loolu lenn dem dafa am. Mm. te loolu koy wax mbëri mag yi bi ñu àndee bi ñu demee ci lu ñu ànd jot a ànd dem am lenn yenn somme jot a dem ñoom seen wàll boobu dañoo waroon a jël ci xaay boobu génn ci. Mm. jël ñu dugal ñu ci biir kees gi. Mm. parce que dafa am benn côté faiblesse bu xotoon am ci benn ci benn côté mooy. tey bu ñu demee euh, autorité bu ñu génnee xaay jox ñu surtout le maire de la ville Timbo di saluer wax dëgg yàlla courage am ak li mu jàppale ci côté li nga moo di 200 pour cent bi. kon la ñu waroon def mooy. tey ji bañ génnee xaay boobu ñu ne kat mais dañ naan mbëri mag yi bu ñu ñëwee nañ leen jox temps nañ jël somme bi bu nekkee 5 millions ñu ne nañ nañ jël 3 millions nañ jël 3 millions 500 daa ko séddale mbëri 1 million 500 ñu jël ko dugal ko ci kees mais loolu mooy problème bi tandis que 200 pour cent li mu war a doon mooy ñoom mbëri mag yooyu ñoo war a xam ne seeni rakk ñoom ñoo nekk ci ginnaaw yeneen champion yoo xam ne dañoo dañoo war a ñëw ñoom liñ war a xaalis boobu noonu même tey xëy na seen seen déplacement li ñu ñëw dañ leen jox mais loolu la ñu woon dugal ci kees mais fekkee dafay 5 millions day dafay ñëw 4 millions yi ñoom mbëri mag ñu seddoo ko 1 million ñu dañ ko dañ ko dañ ko dugal ci kees gi loolu après ñu koy jox mbëri ndawaan 30 30 mille ay 30 mille loolu moo dul yoon loolu la ñu war a toog waxtaan mbëri mag yi ñoo war a fexe nag loolu su amatee ñoom bu ñu amee dara ñoom bu ñu mënee jël seen xaalis sa dugal ci kees gi ñu ñu def ci 200% bi pour ñaata ngeen jox Boy Niang contre ba Balla Gaye 2 non Boy Niang contre non mënuñu war jox ne parce que tamit foofu moom Boy Niang moom li am moom moom xëy dem na ñun démarche bi ci waroon def pour dox comme li ñu ca ca soq defuñu ko foofu noonu parce que ñu waroon jóg ànd dem dox ci affaire dem mais de manière partielle individuellement ñoom lañ demee ak kii parce que ak affinité mu am ak maire ak yooyu mm. foofu moom wax dëgg yàlla fekkee ku nekk da ngay wax rek mm. xamuñu ci dara li nga lañ mm. ci ci tamit dox nañ def nañ ci def nañ ci démarche mais la am tamit foofu tamit moom tam xamuñu ci dara tamit xamuñu dara bëri woon na ndimbal de bëri woon na ndimbal trop amoon na ndimbal amoon na ñun 200 pour cent bi foofu ci amul dara liñ ci am ñun ah. li ñu jot am ci ci autorité mooy génn yi nga xam ne peut-être génn nañ ay sorties def ko xam nga ñu wooñi ay ñu wooñi ak surtout que moment bi ñu nekkoon ci ay élection législative bi ñu woowee xam nga ñu ñu am benn génn bu ñu ci génnoon noonu yëkkati benn somme boobu jox ñu 5 millions la ñu jotoon la ñu génnoon foofu la maire dégagé woon jox ko ah. bi mu ko joxee 5 millions mais xaalis bi li ñu li ñu li def dañoo jël euh, pratiquement 3 euh, millions yëpp ñoom ñoo ko jël 3 millions yëpp dañu ko jël jox ko 2 millions yi écurie yi ñëwoon écurie bu nekk 10 10 10 écurie ku nekk ñu jox la ñu jox la sa transport ñu ngi di woon 100000 francs 100000 francs loolu desaan 1 million mhm. mu des ñaata mu des 1 million 1 mhm. million yi lañ jël pratiquement daa koy dugal ci kees kenn ko après yu koy jox mbëri ku bëri yooyu maire bi jox mooy problème bi mu andi non non non mais non problème déedéet bokkutoo ñoom li ñaa gisuñu seen bopp mhm. mooy 5 millions yooyu bi ko joxee bi kii ñëwee bi bi bi bi bi mbëri mbëri mbëri mbëri yi fa ñëwoon boobu ëmb seen ñëwoon Euh, Boy Niang ñëwoon na soq ñëwoon na ay ñoom Ndiaga Thiam ñi fa ñëwoon boobu noonu ci affaire boobu ñu ñëwoon rek moom lañ moom lañ seetlu ci kii bi. mais mais président jot ngeen fa xaalis non président loolu tamit beneen affaire ñooñu ñu fa demoon ñoo dañoo dem demuñu ci tur boobu bokkul gars yi ñu ngi wax 200 pour cent gisu seen bopp loolu 200 pour cent bi yëgu ko. mbëri ñoo fa ñoom ñoo fa dem individuellement mbëri yëf mbëri fa dem ñoo fa demal seen bopp ñoom ah mais mbëri fa dem xam nañ fa uh-huh. ñoom ñoo xam nañ seen bopp yow yow mbëri yow yaa ma leen gën a xam uh-huh. ña fa demoon Eumeu Sène demoon na fa waaw Boy Niang demoon na uh-huh. Euh, nu mu tuddati euh, soq demoon na. ñoom ñoom ñoom ñoom demoon na ñoom dañoo dem nag de manière individuelle seen bopp moom lañ moom moom lañ demal. demuñu si tour 200 pour cent xaw ma nag ku leen kiyal link boobu ba ñu mën a dem fa ba am fa loolu. Mhm. mais loolu ñoom après ñun bu ñu yégee loolu bi ñu ah, ba ñu daan dem aussi na mënoon nañu a imprégné ci affaire bi ñu dem ci. parce que am na benn réunion bu ñu tenir keroog boobu mairie la woon guddi su ma juumul sax xaw ma ndax yaa ngi foon xaw ca Timbo mais ñun ñëpp a ngi foon te boobu nag fekk affaire bi ñoom yëgoon nañ mënoon nañ ko généraliser gars yi bi yëg ko mais nag ah de manière individuelle ah, man moom xam naa ne daal bu hmm. euh, xaalis benn xaalis bu dugg cent pour cent hmm. bu tas association moom amul mais ku ci dem de manière individuelle hmm. gars yi yëg ko mën nañ koy jàppee ne loolu ci deux cent pour cent fekk na nekkul ci deux cent pour cent fekk gars des fois dañuy communiquer noo xam ne du ñu xam li ñuy wax mais loolu na ko yàq parce que dem yenn mbër yi nekk bokk ci deux cent pour cent individuellement dem ñu leen xaalis gars jap jàpp ne ci 200 pour cent mën na ko jox loolu mën na ko yàq mais fekk na ñu xëy na ñoom ñoo lijjanti seen bopp ba dem foofu noonu mais comme dañuy yër na mbooloo lañ buñ dem ba ciy dem même fekkee ne ñoom dañ cey dem demuñ ci turu 200 pour war nañ def ah comme 200 pour am na nañ yëkkati dara ci loolu ñu jëm dugal ci kees bi loolu tamit day doon loo xam ne xëy na bu ñu ko defee bu fekkente ne tam fajul fajul lépp lépp lépp dina am loo xam ne au moins dina tane en tant que secrétaire général la ngay tàggoo ak en tant que secrétaire général bu ANELS bi leneen li may tàggoo di wax mooy d' abord maa ngi yow 200 pour cent tam yaa gën waaw waaw 200 aussi tamit noonu bon donc di wax ne daal di gën a woo waa Pikine surtout waa 200 pour cent bi nañ gën a booloo ñu doon benn ñu jàppante xam ne Pikine moom la ñu am mm. te Pikine wax dëgg yàlla li muy représenté ci làmb mm. bu ñu boolowee juboo doon benn lu ñu mënut am sa làmb amul koo xool rek fi ngay xoole mooy ci combat sox ak ki moom moo di euh, franc mm. nam meloon stade ba léegi journée bi mel noonu pratiquement gisoo duñ ko fi kon war nañ gën a mën a booloo jàppoo doon doon benn te bañ a xool intérêt personnel mm. intérêt crypto personnel te ñuy jàpp ne xool ñu ne benn lañ ñu jàppalante mm. kenn ku nekk la nga bëggal sa bopp mm. nga bëggal ko sa morom beneen bi wax aussi itam ci côté ANELS au nom de l'ANELS association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal ma nekk secrétaire général bi may wax ne entraîneurs yi actuellement nii licence su entraîneurs yi carte yi génn na ñu ngi koy joxe képp koo xam ne nga nekk nga am formation muy initiateur animateur wala premier degré na nga ñëw nga defar sa licence deux photos ngay indi ak 5000 francs ak 1000 francs pour bordereau ANACIM bu ñëw ñu defal ak sa photocopie diplôme. Hmm. nga indi ko ak sa photocopie 40 ñu defal la carte bi. Hmm. su loolu bis bu kii bi démarré waatee lambi képp ku amul carte entraîneur boo ñëwee sa mbër boo ñëwee pour indi ko sa siège bi dañ koy dëpp. Hmm. di wax ne aussi itam ñi nga xam ne dañoo nekk ay entraîneur tamit defaguñu formation. na ñëw approché ANACIM. ngeen ñëw si ñun ñu defal leen formation bu ñu defalee formation ngeen mën a am ngeen mën a am seen carte di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak. jërëjëf euh, mon frère Aliou. ok merci.